loo xam ni mënuñu koo séddoo kon jaboot jàmm rek tey mbokkam ndax nit ñi kenn ku ne nga jóge mën ngaa dund ba àddina tukki kenn du xam sa morom kon yàllaa na boole nanu yéenante jàmm yéen nan ñun ñëpp nañ yéenante jàmm te xam ni jàmm moo baax cim réew di wax euh, monsieur le ministre nag travail ak finance maa ngi leen di nuyu di leen siyaar yéen xam ni place bi ñu leen teg méritoo ngeen ko ndax fii kat lu ne xam lu ne xew na lu xew na fi lu ne wax nañ ko fi waaye seen toogaay bi ngeen toog bu jekk bi fa tubaarakàllaa macha allah boole koo yar yar seeni wax lu jafe ngeen def lu ngeen tontu du ngeen sëqat du ngeen def leen yéen a ngi ci leen fi andi rek njaboote ñépp waaw doon paaka ñaari boor kon yal na leen yàlla yàggal ci suñu kanam yàggal leen seen liggéey la ca des nag bi ma sama gàmm bi it maa ngi koy gër maa ngi koy ñaana yàlla defal ko jàmm li ci des euh, monsieur le ministre travail ak finance xam nga man de département Bambey sàpp na leen ba ñëpp département Bambey lañ may wooye li ma fi wax lépp pour département Bambey gafaka yii ñu natt yàlla bu leen ci kenn ëppale te na ngeen defar defaral waa département Bambey ba mu baax ndax ci àll bi la ñu nekk te àll bi amuñu ay moyen kon nag jàppale leen waa àll bi bu ma paree ci loolu ku nekk ñu yëkkati loxo ay de saw dégg naa li nga wax honorable député ku ne yëkkati sa loxo di wax sa candidat candidat yi bari na lool waaye góor ñi góor ñi bu ñu xëccoog jigéen ñi ginnaaw góor ñi moom kenn ku nekk li def nii di def nii di def nii léegi bàyyi leen lépp seenu jigéen rek ñu defar ba mu baax jigéen mooy yaay jigéen du xeex jigéen du xulóog jigéen du def leen waaw ginnaaw nag góor jigéen gi nag góor gu nekk nga yëtta yëttati mbaggam waa ji yéen mun ma xaa jiital leen seenub jigéen ah teg ko ci seen kanam waaw jàmm ci jëkk jàmm ci ñu defar réew mi Sénégal jëm kanam loolu daal laa leen wax loolu mu ci wax ndax jigéen jooju ma leen di wax merci maa ci xam dara jigéen ju gore merci ah, ay ca bokk